sa kàddu yi nga daal di euh, yëkkati euh, gis ngeen ko mu ngi noonu ci euh, écran bi Guy yi Sagna actuellement gis ngeen ko ak partisan yi moom Guy Marius Sagna mu ngi noonu di dox yéen ko gën ngi noonu moom Guy yi Sagna voilà dans dans dans dans les rues voilà mu ngi noonu. Action avant le feu élection avant le deux. élection avant le deux. élection avant le 2. élection avant le 2. élection avant le 2. élection avant le 2. élection avant le 2. avant le 2. Élection avant le 2. Élection avant le 2. Élection avant le 2. Élection avant le 2. Élection avant le 2. Élection avant le 2. Élection avant le 2. Élection avant le 2. Élection avant le 2. Par là. Élection avant le 2. Élection avant le 2. Élection avant le 2.

Jersey. That's not Parle 2 euh, gis ngeen fi nga xamante ni si fële mujjee euh, euh, ñu ngi noonu <laughs> mu nekkoon Guy Marius Sagna nekk ci tali yi moom ànd ak ñi nga xamante ni si mën naa ni partisan yi la ñuy yëkkati benn kàddu di wax naan élection avant le 2 ñoom élection lañu bëgg avant le 2 ñoom ñooñu nekk ci mbedd mais dafa mel ni dafa am lu leen sànni de. dafa dafa am luñ leen sànni ndax gis ngeen <laughs> fuul bi nu mu tasee. Euh, ful bi nu mu tasee tas bu doy la tas kay ak tas bu doy la ful bi tas ñoom borom élection avant le deux en tout cas doy na waar euh, mais li ci mënti am rek le président de la république rafetlu na bu baax a baax euh, li conseil constitutionnel génnee démb. ca noonee moom également communiqué présidentiel génne na moom nee na dina. rafetlu na ko dina jàpp li nga xamante ne si def élection euh, dans les plus brefs délais comme ni ko conseil constitutionnel sàkko euh, ci beneen wàll ba également libération des détenus politique euh, mu ngi woy ba tey wala vague bu bari bari nemmeeku nañ ko ni ki démb ak tey donc bu amee ku ne ci ligne bi rek man ngeen dugg daal di joxe li nga xamante ne si moom mooy seen xalaat. au 78 689 95 95 rek euh, ñu daal di lay jël daal di la bàyyi nga joxe li nga xamante ni si moom mooy ci xalaat euh, ci tolluwaayu réew mi actuellement euh, présidentielle ne ngeen élection avant le 2 moom la ñuy sàkku wala moom la gars yi di sàkku ndax kat ah le 2 de moom bu jàllee. le président Sall moom le 2 la mandat am daal di yam voilà donc warul jàll li nga xamante ni si moom mooy le 2 avril donc bu la dee jàllee élection amut donc euh, après nan la ñuy def euh, nguur gi euh, ci loxo kan lay mujjee wala nan la ñuy géem a gérer également boobu la situation ndax li nu mel également mënul am leneen li nga xamante ni si mën na ko jur muy des question yu ñuy samp mais lu mënti am rek conseil constitutionnel mi ngi koy ñaax à que mu daal di def woote. dialogue euh, ñi nga xamante ne si ñoom ñooy euh, ñu privilégié également li ni mel daal di toog autour d'une table ronde daal di waxtaanee li ni ndax kat ba tey le président moom mooy euh, le maître du jeu voilà mën na joxe li nga xamante ni si moom mooy date boobule ndax conseil constitutionnel wax na ko nee na du moom moo koy jox dat te moo du moo koy wax kañ la mais moom mooy le maître du jeu raison pour laquelle donc actuellement le président Sall je pense que ni. Euh, mbir yi ci moom ci moom ci moom ci moom la des également Ismaïla régie bu amee vidéo yi nga xamante ni si également euh, mu ngi foofu noonu ba tey ci euh, détenu politique yi rek nga daal di koy indi ku ci mel ni Pa Abdoulaye Touré dégg ngeen ko ak keneen également ki doon wax ni moom biir néegam lañ ko daal di fekk daal di ko jël daal di ko yóbbu mu nekk kàddu yi nga xamante ne si moom moom la njëkk a yëkkati ginnaaw buñ ko bàyyee buñ ko libéré niki démb bu dee yemb na nag xam naa. da koy da nga koy indi gars yi daal di si lu ñoom tamit euh, gis euh, xar kanamu ñi nga xamante ni si ñoom ñooy ces ces détenus vraiment mu nekk nag li nga xamante ni si tey ñëpp ñu ngi koy rafetlu parce que comme ñu naan seul euh, la lutte libère voilà peut-être que ni xeex bu nit ñi di xeex moo waral li ni mel ba tax ñooñu lee daal di am boobule liberté mais ak lu manti am rek libération bi dañ koy